continuer aat ci émission wala axdari bi ba léegi tey ñu ngi war a tàmbalee waman sallama saakan fii kamaali salaati yi battala salaatu mooy yow nga doon julli di usité sa julli gi mën naa motu rek nga sëlman sa julli yàqu na kooku bii ñetti rakka na tey foofu la war a tàmbalee sëriñ bi nee na waman sallama ku sëlman saakan di sikk sàkka fii kamaali salaat yi ci marag julleem battala yàqu na salaatu julleem ba loolu leer na mu ne wa sawu jamaj fii salaatil qadaa yi ci julli fay ka saw yi comme la rek fii salaatil aada ci julli jooxe comme boo doon waxtu boo sa jamajee nga wàññi si jot xabla yokk si jot baada boo doon fay noonu kese la amul benn wutee mu ne wa sawu jamaj fi naafila ci naafila ka saw yi jamañ la rek fii farata ci julli farata julli farata boo doon julli juum ak boo doon naafila juum ñoo bokk benn kon duñ la wax bu dee farata nii la bu dee naafila nii la ñoo bokk benn at mu soog a def istisna ci naxaw mooy mu soog a setti ne ilaa fii sittil masaa'il lu dul juróom-benn masala euh, jamaat ci farata ak jamaat ci naafila wuti nañ ci juróom-benn masala yi ban ak ban la mooy faatiha wa surati ak saar wa ak yeelu wal jëri ak biral wa ziyaadi rakkaani ak dooli rakka wa nisyaani baati arkaani ak fàttaliku kenn ci ak fàtte kenn ci ponk julli intaala bu yàggee juróom benn yi daal farata ak naafile am nañ ci différence fatiha jamaat ci fatiha farata ak naafile am nañ fi différence parce que euh, dama la koy doxe ñu léegi nga dégg masala mi benn yoon ndax su ma ko expliqué ba pare soo ko ñëw firiyaat ko loolu bu boobaa day tuddi ak fasaadi waaye comme moom leeral na ko moom borom dama ne bàyyi bu ñu sa sax fa ma leeral mooy fi mu wax ne fa man na ko fàtte faatee de faatee fi naafila ci naafila wala sakkara mu fàttali ko baada rukkoo gannaaw mu rukkoo tamaadaan na continuer si julli ga wa sajada mu sujjoon qabla salaam mu ne nag bi xilaabil faridi wuri naa farata de fa innu bu doon farata yul xii dafay neenal tilka raqaati boobale rakka wa yasidu mu dolli uxraa beneen wa yëkkunu daan wa yëkkunu dana nekk sujuudu sujoo tëbb kama sakkarnaa képp nañ ko fi taariki sujudi ci ko bàyyi kon benn masala setti na fatiham. fatiha boo doon julli farata bàyyi ko sa julli ko yàqu la du force da ngay indiwaat beneen rakk en remplacé ko ko waaw bu dee ba nga ko fàttalikoo yàgg na sa sa julli na kon waaye bu dee naafila la moom da nga koy qabla kon ku fàtte fatiha ci naafila nga fàttali ko gannaaw boobu rukkoo ba pare da ngay continuer ci julli ga nga qabla mu ne wutee daak farata bu doon farata la nag rakka boobu nga bàyyi faatiha da nga koy da nga koy nenal nga dolli benn rakka boo paree comme ku bàyyi sujjóot nañu waxoon ne noonu lay sujjóotee ci gannaaw boo ñëwee noonu nga koy sujjóotaale rek kon xaman nga ko fële jeex na ba tey mu ne wa mën na seet ku fàtte suurtan saar awil jërin wala biir awil sirra wala yeelu fi naafil ci naafi la wala sakkara mu fàttali ko baada ru koxee gannaaw bu mu ru ko tamaanaa nag continuer si juleem bi wala sujjóot del sujjóot xale di ko war bi xilaali fari wuti naak farata bu doon farata la dafay si jóg koo xam ne da doon julli naafila mu fàtte saar wala yeelu wala biral ba ko fàttee ci naafila avant mu ngay fàttali ko dem na baru kon day continuer si julli gi bu paree du si jóg dara bu doon farata la nag julli farata moom da koy si jóg qabla salaam kon foofu am nañ fi différence ba tey de mu ne wa man xaama ku jóg ila saari si di jëm ci rakkaam ñetteel fi naafila ci naafila fente sakkara ba ko fàttali ko qabla aqdra koy njëkk fasu rakkaaba rajaana dellu si toog wa sajada mu sujjóot baada salaam way naa bu dee dafa fasu saalisata rakkaam ñetteel ba tamaada na continuer ci julli gi wa zaada mu a raabiata rakkaam ñetteel wa sajada mu sujjóot qabla salaam ba tey bi xilaabil fari wuri naak farata fa innahu bu doon farata la yer dellu ci force mata sakra waxtu woon ko fàttali ko wa sajada mu sujjóot baada kon bii farata ak naafile am na ci koo xam ne da julli naafile moom mu am ñaar rakkaan jóg jëm ci jëm a rakkaan ñetteel bu dee avant rakkaan ñetteel bi di fasu ci la fàttaliku ne rakk bii kan ñetteel rakkaan la dafay dellu si toog taayee sëlmal bu paree mu sujjo baal salaam bu dee nag troisième rakkaan bi fasu na day continuer si julli gi waaw troisième rakkaan bi fasu na day continuer si julli gi dolli ñeenteel rakkaan su nga xam ne moo nekk xabla salaam mu ne nag wutee naag farata su doon farata la moom dafay dellu si waxtu mi ko fàttalikoo mu sujjo baal salaam bu doon farata la nga jóg jëm ci cinquième raka mu leer ne bi juróomeelu raka fasu daa fas wut force da ngay ñëw force waaye bu dee naafile la moom ñetteel troisième raka bi bu dee fasoo da ngay jël ci toog bu dee fasu na nga dolli quatrième soo paree nga su julli nga xam ne mooy xabla kon farata ak naafile am nañu wutee foofu ba tey dégg nga ba tey mu ne ba man dasee ko ponk ruku rukkunan ponk boo ko déggee farata mi ne naafile ci naafile moom lay wax fii tax la ka rukkoy lu mel ni rukkon awi wala su wala mi da sakkarta fàttaliwul ko xataa salama ba mu sëlma wa taal tam yàgg fala iyaane di nag baam ali di ko war bi xilaafil farida di huri naak farata fa innahu bu doon farata la yu ñu doon da koy baamu abadan ba faw bu doon farata la moom da koy baamu faw koo xam ne da doon julli naafi la fàttali sa fàtt fàtte sa sujjóot wala boog rukoo julli na lu yàgg soo ko fàttali ko ne man de kene bi ma doon naafi la bay woon naa sa farata naafi kenn du ko baamu jàngoon nañ ko ci gannaaw waaw kenn du ko baam kon naafila la fàtte nga ci ponk lu yàgg bu boobaa kenn du ko baam da lay wax ne la ko mu ne nag wuri naag farata bu doon farata la moom boo sa bàyyee ab ab ab ponk nga fàttaliku ko lu yàgg-yàgg moom da nga koy baamtuwaat mooy euh, benn bu dee waxtoo jëwoon nga baamtu ko su waxtoo jeexee nga fay ko kon juróom-benn masal yi farata ak naafila foofu la ci amee wuti waaw xam naa ne comme du darsu bu jafe soo ko euh, téye téere bi liir ko rek ala kulli haal te déglu firi bi da nga mën a comprendre sa kon ni may def rek mooy dama leen bamtul firi bi ñu yem foofu darsu ba suba incha allah moom la sëriñ wax ne waman sallama ku sëlmal na saaka di sikk saaka fii kamaali salaati sa marek juleem battalaat yàqu na salaatu juleem nga mu ne wa sawu jamaaj fii salaatil xadaay si julli fay kësa bi comme jamaaj rek fii salaatil aadaay si julli jooxe mooy julli te waxtu wa wa sawu jamaaj fi naafila ci naafila que sawi comme jamal rek fil fardi julli farata ilaa fii sittil masaay lu dul juróom benn masala yii ñoom lañu amee wutee mooy baraban alfaati mooy fatiha wal surdi ak saar wal sirri ak yeelu wal jëri ak biral wal siyaad rakkaan ak doole rakka wal nisiyaani badil arkaani ak fàtte kenn ci ponk junni muy faratay intaala bu yàggee juróom benn yooyu fi la utee ba am léegi nag bu commencé na dina expliquer ne la bu dee naafila la nii lay demee waaye bu doon farata la noonu lay demee moom lay commencé ne la fa man na see ku fàtte alfaatiha de faatiha fi naafila di ci naafila wala sakkara tam fàttali ko baara rukon yi gannaaw ba rukon tamaaraan na continuer si julli gi mooy na wëy wa sajada mu sujjool xabla salaam bi xilaafi fardi di wuri naa farata fa innahu bu doon farata la yulqii dafay neenal tilka rakaati boobu da rakka wa yasidu mu dolli uxraa beneen su boobaa nag wa yëkkunu dana nekk waye wa yasidu mu dolli uxraa beneen waaye tamaaraan bu continuer si julleem su juudu su jootam ba kama sakkarnaa képp nuñ ko tuddee woon fi taariki su juudi si ko bàyyi su joot sëriñ bi nee na ba mën na cee ko fàtte suratan saar awil jëhëra wala biral awi sirra wala yeelo fi naabila di ci naabila war a sakkaratam fàttaliku ko baara rukon yi gannaaw demee ba rukon tamaana nag continuer si juleem bi te wala su jëlee dee su jëlee ànd yi di ko war bi xilaabil farid di wuri naag farata ba tey mu ne ba man xaama ku jóg na ilal saalisati jëm si di ci naabila fa inta sakkara ko fàttalikoo xabla àqdi rukkoo yi njëkk faso rakkaa ba rajaana dellu ci toog wa sajada mu sujjal baada salaam waaye wayn àqada bu fasoo saalisata rakkaam ñetteel ba tamaanaa nag continuer ci juleet bi wa zaada mu doole raabiata wa sajada mu sujjal xabla salaam xabla salaam bi xilaafin faridati hudien ak farata fa innu bu doon farata la yarjoon dafay dellu ci mata zakara waxtu yi nga ko fàttalikoo waye wa wa sa jërë mu su waye jur kon mu sujjoot baada salaam baada bi nee na ma mën na cee ko fàtte wuru ko doon ponk mina naafila ci naafila ka rukoy lu mel ni rukon awi sujudi wala sujud wala bi da sakkarta fàttaliku hut ko hatta salama ba mu sëlmal wa taala ta mu yàgg fala iada déet ak baamtu fala iada ta déet ak ba faw kon foofu doy na darsu incha allah li mu tax darsu bi gudd nag mooy li nekk benn masala dañ koy bañ a dagg tey bu soobee gi ñëwaat jaxasoo waaye soo ko dégloo benn bi rek juróom benn masala yi ci farata ak naafila foofu lañ amee wuute boo ko seetantalee rek ala kulli haal dafay neex ak comprendre kon tey ñu yem foofu ba suba incha allah